cey Talla Ndiaye Talla mbër bu tolloo fii lu war a yëg. ah fii ne mooy moom mooy bouquet final bi li ngay wax bouquet final yi. sangu rek moom kuli fay xoolal saako yi. gàmmu it moom mi ngi préparé moom mi ngi sangu rek. mais est-ce que mbër yi dañoo war a dem Màkka wala damaa gis fan yii dañuy dañoo xewal li nga xam moom moo di semisu alaaji nan la demee noonu Babacar. doy na waar xam nga a yi rek lu ne ñoo la koy digal Talla. damaa yaakaar nañu waajal Màkka. bu heure bi jotee solal bu heure bi jotee sotte kool gis naa ko fi ñaari yoon. xool leen ñoom ñaar ca roq ba bu heure bi jotee naanan lii ko léegi jaagu mbaan di ñëw cey Coly Faye numéro 2 mbër mu bari mbër mu bari yëngu-yëngu la Burxaan wax da ngongu taxaw mënaat sa moo nekk nii ndaysaan père Bour kii moo yor booy ñaa bu dëggool père Bour a ngong Njaay xiis a ngi lii moo di xiis Babacar lan mooy xiis xiis boo demee ci àll bi da nga ko fay fekk eh xiisa ngongu xëddeen lay doon am na lu mu yor di daw di wër ak moom géew ba koli kolee ngi daw di wër géew bi yor ko ci tànk bi a lii doy na waar Lamine mu ngi daw ak moom daal seet arbitre baa ngi leen di seet Talla Ndiaye eh tey la tey la arxeme Talla Ndiaye bisu 4 avril la jaawale laay bañ Talla mbaa doo jaawale ndeysaan tey la 4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 président Macky du la def ministre de la justice. ah Lamine déet loolu day diis. wala nga wala nga. kii ma jox communication. wala religion. non communication gën a wóor. religion bi baax na baax na. waaw religion baax na. waaye arbitre baa ngay laajte Lamine xool ko. eh borom lumière bi arbitre soufflé na. borom lumière bi lamb ji lu na nga fiy gis. Coly Faye go droite door na ko. jàppante Madou Madou bu mu rëcc na lay door. dóor laa ilaha illallah ñu ngay xeex bu jaawale lii eh Coly Faye Coly Faye jël nañu Coly dañ lay daan Coly Coly bañ na laa ilaha illallah Coly Faye génn na foofu eh ñu ngay dóorante ca suuf jaawale laay bañ tey la 4 avril jéey borom 4 avril nee na le premier la juddu jéey seen say 4 borom avril kon lamb ji tey avril yi neen la eh Fatou Kiné doomi Abdoulaat Ndiaye moom itam nañ 4 avril la juddu kon daal avril bi ala daw waaye ñaari mbër jàppoon nañu waaye 13 avril Assane Ndiaye bool production ambulance bu Thiès wulli dee bu bawal ndaw lu tarte metti waaye eh jamaïcain borom la 14 moom tamit du yomb laa ilaha illallah laay Pythagore la treize Assane Ndiaye diggante kan ak kan eh ambulance bu Thiès wu lidee bu bawal lu toyo toy waar maanaam ma niroo bëree waaye cay ambulance moo gaaw bëree laa ilaha illallah waaw loolooy combat combat bu rëy baa ngoon ca bés ba. explosé ak général Diouf. général Diouf bu mbuur la doy waar. explosé de l'ISAC ko xam-xam la mujj a daan ca la mujj a bëree fii jënd bu rëy. bu rëy général Diouf fii bi mu fiy jógee dañ koo daan par décision arbitrale. ak seen booy Balde Babacar. laa ilaaha illallaah drapeau Ablaye Loobu bari ñi Ablaye Loobu sami xotaan. ndengeñ bu sax. ndengeñ bu sax a sax a sax. ee eh, jaawale wuurul. ñu nga ca ñaari mbër yi ah ndengeñ moom moo fi gën a metti ci put lañ la koy def laa ilaha illallah ser su jom nuyu naa la sama xarit sama doomu ndey sama rak l'international Youssou Ndoye eh duma la fàtte borom France atena toppal ma loolu Talla Ndiaye wax na ak ñoom lu xew lu xew lu xew arbitre arbitre lu tax nga atte soufflé waat na lu tax mu atte laa ilaha illallah door na ko mu daw jëli ko da koo laaw góos door na ko droit yee barki ma dal na Coly Faye moyul loolu wër jël na toog na toog na toog na waaye lii loolu wër jël na toog na toog na ñu ngi bëri ba léegi waa lii lan kii dinañ ko rey dinañ rey kii dinañ eh, eh, Talla Ndiaye hee waay lii doy na war waa Lamine Tiso waa ndeysaan Talla Ndiaye arbitre baa ngi wax ak ñoom dafa am mbër gauche wala boog dafa am mbër droite Balla gauche match mooy arbitre mu ngi leen di yedd di leen wax règlement bi li mu mu bañ waaw ndeysaan tey samedi la 23 mars la Assane Ndiaye Baol production moo fi woote drapeau Aziz Ndiaye eh ñoom Baye Ndiaye Baye Ndiaye teew ñoom jaw bu Balla Gaye dee wala bu Malick Gakou ñoom Daouda Seck ak ñu mel ni ki ñoom Njoogu Mbay ñëpp ñëw nañu teew tey eh avertissement dafa mbër te arbitre sufleegul def na lu yoon di bañ deuxième avertissement dafa mbër am na ñaari avertissement dafa loolu baaxul de biram loolu baaxul. loolu ay points yu wàññeeku la Babacar ndax ñaari avertissement. mi boo ko amee mooy combat ba yem na fa temps jeex ak jeexul arbitre sifflé. arbitre sifflé na ñu ngay lewaatoo maam Balla wàcc na moo féete gauche jiital pied droit ku nekk pied droit nga teg ay fausse garde la ñu. la ilaha illallah. yee maam Balla dafa ñu ngi ne jàkk di xoolante ca kaw a kaw xoolante ba ca kaw eh bu kenn jaawale lii Mame Balla mépp jaawale ko du wóor Zal Faye nuyu naa la eh daw na xeex waaw Tafa fayu na dëkkam dóore fayoo ko tas waaw dëkkam dóore ba fayu amee la tas ah dinañu xeex ci kaw de waaye te xalaat naa ci suuf la ñuy si. jaaxal tànk yi moo tax xalaat naa bëre suuf ay am yi. fii ndax na faa am. ah padd fee am de door tànk padd. waaw waaw xaar ko fi. ñu ngay xoolante ca kaw. Babacar a ngi leen di nuyu yéen ñu sifri ñëpp. ànd ak Birame tey ci Leewtoo TV xeex nañu ca kaw. Mame Balla dox ci koom. nga ne Tapha Mbeur na def nànk xam ne ku muy bëreel miin na. jël ko Mame Balla Tapha Mbeur jël na ko Tapha Mbeur jël na ko Mame Balla koy boot eh! Mame Balla dañ lay daan mboote laa ilaaha illa daan na ko oh, taala Mame Balla dañ lay daan mboote laa ilaaha illa daan na ko oh, taala Mame dañ lay top 5 waxoon na ko Laye Pythagore à droite ñaq jariñu à gauche drapeau Aïda Mbodj waa Laye Pythagore ñaq jariñu drapeau Aïda Mbodj ñaq ngay ñaan eh bu leen jaawale lii tey la dimanche 14 avril 2019 ñaq jariñu à gauche Laye Pythagore may bañ ko jaawale deuxième gara wala boog lii mooy grand combat bi wala ñaari grand combat bii moo ci desoon ñaq ak laay ak ñaq cay ñaq borom caaro yi laay borom parcelle kër seega ee eh kër seega bayax ami soufflé na ñaq jëriñu fausse garde féete gauche laay Pythagore fausse garde féete droite ngemb bu weex laay ngemb Lagos ñaq ñu ngay lewaatoo suul tànk yi nga koy xool ca kaw laay laay bras droit Modou Lo eh Modou Lo ngi di bëre waaye ñaq doomi caaroy cey ji lamb laay marle ko mujj a daan ñaq doomu dango ko mujj a daan laay xeex na laay ñu ngay xeex ñaq ak laay eh lu ñaq doomu dango ko daan laay xeex na laay ñu ngay xeex ñax ak laay lu ñax doomu dango ko mujj a laay xeex na laay ñu ngay xeex ñax ak lu xew ñax ku xew laay laay ak ñax kaat ab yi amul ma lii taala lu xew ku nekk ngay réclamer de lu xew lu xew ñax daan na ko ñax daan na laay ñax daan na laay waaw dugub baaxul Talla Ndiaye. gàllankoor combat Papa Boy Djiné am na avertissement moo féete droite papa yaddi gauche ñaari avertissement Papa Boy Djiné te arbitre sufleegul jigéen ay arbitre mois de mars lañ ne eh! tey la 17 mars papa yaddi gauche Papa Boy Djiné droite. arbitre soufflé na Papa Yade wàcc na Papa wàcc na njool ak laa ilaaha illallah Papa Yade xeeru ngor numéro la mujj a Papa Boy Djiné kon gaay bu leen jaawale ñaari mbër ay xale yu lamb yaakaar lay bëre tey ki fa jaar du ku dul Jibi Ndiaye borom Thimson production ànd ak Abdoulaye Ndiaye laa ilaaha illallah ñaari njaayeen muy nuyu promoteur yi ci kaw ñoom jamaykee kanji peres si soxo tourne xeex la ilaha illallah danañu xeex papa yadda daa pànk lambaat na góos am pànk la papa papa yadd waaye papa papa papa jinne borom géejo waaye gunaas borom marché bu bees ee eh, borom amoya waaye papa yadd bu tëngeej am na dàngu am na cawleen laa ilaha illallah am na këri kaw tëngeej looloo am Rufisque waaw dëkk bi historique Leewtoo bu sori andiwu leen fi de sul leen yi samp jaaga ku yi jóg bëre bi am jël am ay xale ngeen eh daw na di ko jëli mbaa duñ dóor nga daanu Papa Boy Djiné mbaa duñ dóor nga daanu xeex eh jiyaar dina am daw na jël tànk ba oh daan na ko ba dóor ko laa ilaha illallah daan ba dóor daan ci suuf Talla Ndiaye Papa Yade def na affaire waaye Cheikh ay kapo laay Cheikh mbërëm maa ngi sa mbër maa ngi mbërum Anta mbërum Baye Sow ma mbërum Thiès mbërum borom Siteu ñu wax ak ñoom ambulance féete gauche ñu liggéey droit Mélange ngi dox ci mu ngi dox ci koom ñu liggéey sànni na góos ba nga jël ko mu ngay dur eh ñu ngay xeex xalaatuma mu yàgg lii nar ta yàgg de lii nar ta yàgg duurante ba ca kaw duurante ba ca kaw waaye Moussa Ndoye garga fàq na ko rëpp da koy wër da koy daan wala lan bañ na de am na ñu liggéey bañ na de ambulance deux temps lay bëree day bëre bëre waat namante waaw na ko teg si yoon pank lay bëre ñu ni do pank la pank la pangalang ba mooy kéwél waaw waaw waaw daa pank ba pangalang kii kéwél kéwél ay nu xeex duñ fi jóge la lay wax yëpp noonu naa la pank ak pangalang lañu dañuy defante ba mu jeex ah. non dafa fonk ñëwee eh, takk na ko mu ngi lay dajale wala yeggagul da lay daan da lay daan ak sees mu bañ waaw jeex bëre am na nag loo xamante ni dégg naa ko ci wuli da koy yóbbu daan na ko wala eh mbot mu seex la ilaha illallah mbërëm seex mi bañ na de mbërëm daal sow mi bëre bu rëy bëre bu rëy ñi ngi bëre leen. Lutte TV ak Leewtoo. ak Leewtoo Lutte TV. waaw waaw du mën a ñàkk. eh ana boos. ana Caalis. Caalis a ngi fi. ana yàgg bawul dara. yàgg a ngi fi ndeysaan. ci ginnaaw. eh maa ngi koy nuyu Papa Ndiaye. Seydou Odex Yao. Eh, daa ñëw baabi ni ko doo dugg. ci kër ci ci lamb ji. waaw heure bi ñëwee baabi ni ko doo dugg. daa tàmm tardé Papa Ndiaye. des taa siiwul nag xamee su ko de. waaw Ndiaye. waaw kenn mu sonal ku mu sonal ba kenn bàyyi wax ku bëgg liggéey di nga nangoo sonn. mais ku ne liggéey te bàyyi gaaw a mer. loolu waxee rek ñu dégg ni ma damay ñib taasukat ba noonu la Lamine mel mu bari mer mu bari la. Ah, waaw moo tudd nga mer. foo dëkk nga mer. waaw ah Lamine noonu la nga mer waaw. kuy sa maam nga mer. waaw buurul waay. boo meree kalaamee nii waaw ku mer kalaam moo tax mu ne xottu xaal bu wooyee danaan kotom lamin. xottu xaal. waaw kotom kotom lay def do xam nga ko xam mooy ñu jàppaloo. déggoo dee ba la sa noppi kotom. waaw kotom. waaw boo demaan àll ba ba xaaxam bi jàppaloo. waaw yéen da ngay ñëw lépp kotom ndax am xaaxam. waaye lamin ñaari mbir ci géew bi. di seetante. waaye kor na ko. di seetante. ndax da ngay dóor. waaye xanaa xamu ci xeex xeex. déedéet bëre bi la ñu gën a privilégié boo xoolee ñoom ñaar faw ñu mbapat mais wuli na waaw ku ko yor da koy wax ambulance kenn du bëri moom ci wet de wóorul waaw di ko jox ay wet de wóorul de parce que nag daa mën a bëre daa mën a bëre waaw waaye wuli de day bañ mbër mu bëri jom la wuli de waa ndeysaan ambulance Babacar boo xoolee seen tànk yi da nga naan ambulance da nga bi ñu liggéey tànk boo xoolee seen seen tiis yi gis waaye boo xoolee épaule yi ci kaw ñu liggéey daa mel ni moo gën a yaatu épaule. dégg naa nag. waaw ci weewu koy. waaw xaw ma weewu kaña. Ah. woo wow nag. woo la wow nag. ne ñu ne amoon na blessure ci tànk. waaw di ko bëri wàllu wóorul waaye daa ni kon wér na de ah. ndax lii moom ku wóorul mënoo koo def. wóorul de ku bëree sa daal yàlla na nga wér. eh mënoo ko koy mbaar. boobu teemu mbaar say lamin bët ak mbaar mbaar ak bët mbaar am mbaar am mbaar raw jën xam nga ko maa xam jënu mbaar waaye jën ci gën a am solo mooy kenn mu bañ day bañ eh, déedéet ñu ngi dee kii palaaki ko yomb loo si mën a jël jàppoon ah, waaw parce boo xoolee tànk yi daf mu liggéey xam naa coono nag dina feeñ ci combat bi ci ñoom ñaar bu lii takkul bu yàggee ku sonn mën ngaa daanu mais combat bi def na cinq mois presque Babacar moom dafa yàgg ah, waaye nag lam lam lamin sport individuel la de géew bi jàppante bi bi tuurante eh Malick a ngi capp di arbitré Malick ziar naa noo ko gisee nee na du wax noppi na Lamine wax na dugg day arbitré wala waaw Malick daa baax. waaw borom baax la. dafa neex deret. waaw Lamine neex deret daa noppale. daa noppale de. boo neexee deret. ah doo bëri problème. taxul a ñàkk fay deret. déedéet. waaw ñàkk fula ak neex deret daa sore. mu ngi mel ni yàlla ak yaali. mu ngi mel ni yàlla ak yaali. ku ci nekk yaa ngi sëq sa ngëm morom boo xoolee loxo lu mu dóoru droit bi dafa uh-huh. cof jàpp ci li waa ji jiital waaw am na nag loxo góosam bi li mu dee dëgër na trop ràcc waa ràcc ndi ndax toog na ci bu sax ñu lay dajale takk na la da koy mbot eh mu bañ takk da koy mbot ndax mo mu bañ oh. eh. Balla Gaye bëre bi neex na. eh bëre bi neex dem ca Algérie. ah Benzema dem ak Tigre Noir. Tigre Noir kenn du ko a soxna Ana Seck Cheikh Diouf Fall ca Paris. maa ngi leen la. mu na ngi ci kaw toog di seetaan mbërëm. na photo ge. waaye tuuti ay Sarr dinaa ko Ndiaye Sarr borom Espagne. Xadim aussi ay ca Allemagne. bu mën a ñàkk baba. Eh, Basoka ca États-Unis. Basoka suñu waa ji ñu ngi lay ziar. Eh, Mamadou Gueye Tall bi si Abdou. waaw xumaane yi dañu leen fàtte wax. ñëpp waaw Ramdan Ba Fak mu ngay États-Unis toog. Cheikh Fak jëf jël Fak. Abdou Ndiaye Sassou Fak. Sassou Ndiaye. Eh, la ilaha Ndiaye nuyu waa États-Unis gëmë noonu waa 116 nuyu waa Medina combat bi gars yi mooy